ku may àndal ci ngor lay ànd ak yow ñi ma xam-xam nañ loolu Abdoulaye Wade ñaari yoon nekk na pouvoir dig ma xaalis ma gàntal mu nekk ci opposition ma ànd ak mu dig ma xaalis ma gàntal ndax dama ànd yow te yàlla tax aku ngor ña ma àndaloon ñi ngi dund kenn deewu ci ñu wëlbatikuwaat tey ñu ni ma PDS daal ànd na ak APR bi ma yeewoo dégg ko damaa tiit mënuma nelaw toog naa ñaari fan yoo xam ne parce que mënuma nekk parce que loolu mënuma ko xalaat Macky Sall mi nga xam ne moo ñu toroxal lu ñu dal moo ñu ko teg exilé Karim wadd jiñ ko ak sàcc au niveau international mu yàq deram kooku Karim même la noblesse bu dese ci moom wóor woon a nanguwaat a ànd ak APR quel que soit prix bu mu mën a doon mais nag lii lépp feeñoon na ñun ñoo ko nangul woon a gëm mooy bi Karim Wade bi ñu toogee ñu xam ni Karim Wade nanguwut ñëw ba ci élection yi mujj yi ñu am ci ay rumeur am ci ay information mais yooyu jël wax parce que amul sens léegi ba ah, bi ñu nee bi yoon nag élection yi ma ni leen ki nga xam ni rey na quatre-vingt-six sénégalais ñu ay infirmiers yu àgg mille huit cent personnes sénégalais yi wàcc ko nga xam ni moom ci boppam fi toll ñëma wut a teg tànkam Sénégal xam na lool ñu xëy PDS dara manque desewu ko lu dul dem di allié ñi nga xam ni ñëpp dañ leen a jiiñ ay reykatu nit ñu rey ay xale ay mineurs yu amagul trente ans waaw ma grande surprise ñu xëy benn bés ñu ne ki nga xam ni moom moo doon rey sénégalais yi di wut ay nervi di leen jox ay arme jënd arme yu bari ñu ngi naan quarante milliards mu jënd ko jox ko ay nit ñu topp nit ñi nga xam ne ay innocent lañ di leen rey ci garage su mécanicien fu ne kooku nga mën a toogaat moyen de six mois nga nekk PDS am ay valeur ni ñoom ngay àndal kooku ko def sénégalais yi bu ñu la sanctionné wu dootuñu la sanctionné ci àdduna ñooñu waratuñoo exister ci politique parce que dañoo trahir le Macky Sall ku mën a ànd ak moom tu as le pays parce que moom fi ñu toll wax ji bari na naan bu ma neexee ñëw Sénégal mais na ñëw Sénégal il a na réew mi te néeg leen ba ñu won leen yàq gi mu yàq réew mi koku nag kuy ànd ak moom yow yaa xam waaye man du ma ànd ak moom loolu bu la yëpp dajee ci koo xam ne rey na quatre-vingt-six personnes ay xale yu amagul trente ans sama moralité mooy moom a ànd ak moom kon li ñu bëgg a wax foofu rek mooy à part de là démissionné nañ ci PDS gi nga xam ni Saliou Dieng moo ko yor mu dem àndi ak démissionné nañ ci ñoom bis naka tey démissionné naa ci PDS suspendre lépp loo xam ne seqoon na ko ñoom ci cheminement ensemble ba ba ba ba ba ba ba jëmmi jamono dinañ leen wax élection yi fan yi danañ leen wax ñan lañ ciy jàppale sans condition la ñu bëgg a jàppale ku ñuy jàppale lañ la jàppale sans condition parce que loolu lañ mas a gëm li ñu mas a gëm moom mooy réew mi te ci loolu lañ fas yéenee euh, fas yéenee nekk fa suñu yéenee war population sénégalaise yéen ñi nga xam ne nag da ngeen a ànd ak man na ngeen déglu tuuti fan yi dinañ leen wax kan la ñuy jàppale waaye kooku yal na gën ci réew mi moom daal bis naka tey na ngeen xam ne naa ci PDS man Matar Oxa man Oxa mi nga xam ni bi ñu demee élection yi man maa jiite woon département bi avec quinze mille voix bis naka tey démissionné na ci PDS Euh, bokkatuñ fu ñu jëm ndax bokkatuñ gis-gis kon ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balaq di leen balaq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf